daleen jàmm mbokki internet yi ñuy seetaan suñu Actu TV ginnaaw ba nga xam ni gis ngeen vidéo yooye doon xew foofee ca Dubai nekk ay vidéo yoo xam ni jamono ji mooy def buzz ba adduna bi yëpp di ko waxtaanee ndax ñaaw bi nga xam ni ñaaw na ko waaye ginnaaw boobee nag dafa mel ni ñi nga xam ni ñoo doon def yooye vidéo ñi ngi commencé siiw nànk-nànk di feeñ bokk na si ñoom ñooñe nekk ñu ay ñenn du ay influenceur maanaam ñu si ëpp si ñoom ñi ngi yëngu si wàllu TikTok ba tey bokk na si ñoo xam ni dañoo nekk ay animateurs moo xam rajo ba si boobee ba tey ñu bëri dañ ko ñaaw ba tey bokk na si ñi nga xam ne ñoo nekkoon du Dubaï te dara yóbbu waleen fa du daan seen doole ñi ngi commencé ñibbisi fii nii si Sénégal ak Afrique ndax gàcce bi nga xam ni am nañ ko ak gàcce bi nga xam ne commencé nañ ko am ginnaaw ba nga xam ne vidéo yooyee génn na ba ñu bëri si Afrique yi dañuy commencé yaakaar ni ñoom li ñuy dund foofee ak li nga xam ni xale jigéen yi moom lañ doon def foofee mooy di tëdd ak ay xaj ak naar di dem seen gémmiñ yi ay ginnaaw kër ñoom tamit yooga yóbbu te fekk ne demeewul noonu ñoom ñooñe daan seen doole mën fa yóbbu mais gàcce boobu tax ñi ngi commencé ñibbi si si seen dëkk yi ba tey nag dañuy samp ab laaj moo tax ñun ñi suñu doomu africain yi nangootuñu toog fii nii Afrique daan seen doole moo xam ba tey fii nii si Sénégal parce que képp koo xam ne bëgg na tekki tekki bu gaaw képp koo xam ne bëgg na am xaalis xaalis bu gaaw képp koo xam ne dafa bëgg a dund dund bu rigsi maanaam dootul toog fii waa dund bu neex moo tax jamono ji Afrique am na gàcce Afrique am na euh, défaite boo xam ni mënatu ko wax fenn ndax sunu doom Afrique nga xam ni ñoo ko doon def foofee ca Dubaï nekk loo xam ni day gën a tuutal ab africain nekk loo xam ni en tout cas ñaaw na torop torop torop si képp koo xam ne yaa ngi doon ab africain moo tax ñu bëri si africain yi ñu ngi koy naqaru ndax ñaaw bi nga xam ne ñaaw na ko ak gàcce bi nga xam ni teg nañ ko képp koo xam ne yaa ngi doon ab africain di fi yeewoo